tijaan yi waaj leen gàmmu gi ñëw na gàmmu ti waawan màggal yonnen be tijaan gi ñëw na gàmmu gi ñëw na ñu dem ci waawan màggal yónneen bee tijaan yi waaj leen gàmmu gi ñëw na gàmmu gi ñëw na ñu dem ci waawan màggal yónneen tijaani ñu dem ci waawan màggal yónneen bee ansari Tijaani waaj leen gàmmu gi ñëw na gàmmu gi ñëw na ñu dem ci waawan màggal yónneen bee Ansari waaj leen burdu bi ñëw na burdu bi ñëw na ñu dem ci waawan màggal yónneen bee Tijaani waaj leen gàmmu gi ñëw ñëw na dem ci waawan màggal yónneen bee Mamadu bu seyro fi taalif burdu fi taalif burdu Mamadu jël ko bi ci way yónneen bee Tijaani waaj leen gàmmu gi ñëw na gàmmu ñu dem ci waawan màggal yónneen bee Mamadu bu bi ñëw na xalif xalifa bi nee ñu dem ti waawan màggal yonnen bee tijaani waaj leen gàmmu gi ñu dem ti waawan màggal yonnen bee centenaire bi xalifa bi nee ñu ñëw ti waawan màggal yonnen bee Tijaani waaj leen gàmm gi ñëw na ñu dem ci waawan màggal yónneen be ay ci centenaire bi ñëw na juma ji mat na ñu dem ci waawan màggal yónneen be gi ñëw na gàmmu gi ñëw na ñu ti waawan màggal yonnen be ay dem ci waawan màggal yónneen be ñu dem ci waawan màggal yónneen be